jërëjëf mbokki internet yi buur a ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel ak fay mën a ne del soit ak yéen ci beneen jotaayu xam-xam kii moom defe naa ne xam ngeen ko du ma leen ko présenté billahi buur la ma am xam-xam mooy Serigne Babacar Diassé sénégalais bi Serigne Babacar Diassé gambien bi wala boog sénégambien bi ku ne xam ne tey war nañoo waxtaan ci ay révélation Ousmane Sonko amati na ndam moom mu bokk ci les rares Serigne yi nga ne loo wax mu ne ma Ousmane Sonko day bokk moom daw ci deltuwu ci gannaaw nee na ma lu waay xam na nga ko wax waaye man man Serigne Babacar Dias dama gëm ne Ousmane Sonko dafay bokk election de élection 2024 mbiru Ama Baldé Modou Lo dina ci ñëw waaye Serigne bi ñu bàyyi la nga nuyoog nuyoog ñu lay seen gars yi namoon nañ la nag wala gàmmu geeg gàmmuwaat beeg dem gàmm beeg nangam ak nangam yow sëñ bi sëñ daal sa programme man xaw ma ko. salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi nuyu Sénégal. Mhm. waaye di nuyu Gambie gi nga xam ne fa laa bàyyee ko. Mhm. gëj nañ maa gis depuis un mois. Mhm. parce que sama baas Gambie la. Mm-hmm. Sénégal ma soxla rek waaye sama baas Gambie la mm-hmm. di nuyu Gambie gi ma jógee ko di nuyu senegal gi ñu dellusiwaat nga xam ne xam nañu xàmmee nañu mm-hmm. di ñaan yal na ñëpp am jàmm mais bi gars yi namoon nañu la te dëkk baa ngi toj instant bi <laughs> waaw ah, sa waa sa waa ji amati na ndam man nag damaa wax ne dëgg suufeel ma man te néew na fu mu amee moo ma gënal fen yëkkati ma waaw loolu benn kàddu rek laa am su ma joxoñee ne penku la penku la ba àddina dajee ne ma xaafu lay penku la Mhm. man nee naa lay Ousmane Sonko focus 2024 day bokk kenn mënu ci dara. mais sëriñ si naan ñi naan dana des ci kaso beeg ñi naan génnagul ñi naan du bokk mais yow fa nga sëñ xam il faut ma def tàkk tey sama émission pour gars yi comprendre ma. Mhm. da nga mës mhm. dogal yi ak yooyu amul. buur xawma lu mën a xew. mais Ousmane Sonko day bokk 2024 fan nga ko teg. fi ma ko teg mooy xam-xam. Mm-hmm. bu ànd ak ragal yàlla mën a seet ba dàq ko mboolem ko nekk ndakaaru mm-hmm. laajtew ma bàyyi nu mu tudd nu mu sant moo envoyé sa kanam bul ma wax looy liggéey bu ma wax ci lu ma lay seetal bu ma envoyé sama teq loxo noo tudd noo sant ma seetal la wax la wax la ni nga juddoo ak fi nga juddoo mm-hmm. maa dàq seet ndakaaru billaahi wallaahi tallaahi dama xam yàlla ma ko defal jagle la nga ne la yàlla la saalika fadlullah yuuti man ishaa wallaahi jox ko soob mm. dama am xam-xam Ousmane Sonko day man ko wax te dañu ma ci ak lu mën a xew Sonko day bokk. jugoo ci. juguma ci tey laa ci gën a nekk lu mën a xew Sonko day bokk. ah man de sëñ bi. man lii man maa la ko wax lu mën a xew Sonko day bokk. sa wax de doon naa ko sikki sàkk man waaye bi nee tey le si Sabassy Faye confirmé na cour d'appel confirmé ko atte ba poids passé bi commencé dem jëli seen fiche de parrainage yi laa ne sëñ Babacar du nit. man ñi ñëpp xaw ma leen. man li ma mm. xam mooy seet. mu wal na loo xam ne dañ ba pencam yàlla. Mm-hmm. te man seet moo may wan ne ma lii nii mooy am lii du am diw sàngam day bokk diw sàngam du bokk diw sàngam mi ñu ngi koy pexeel ñu ngi koy jiimal waaye kenn mënu ci moom dara yàlla teg ci moom loxo yëkkati ko ba ca kaw Ousmane Sonko Ousmane Sonko day bokk lii lu yàlla def la te kenn mënu ci dara bu bokkee bu bokkee mooy nekk président Sénégal tënkal Sénégal ak réussir ak avancement mu ci loxol Sonko sëñ bi yow nag dafa mel ni militant Pastef nga rek <laughs> man naa la bu wax jotee ñëpp laay wax bu jëf jotee ma jëfal kama neex mbaa kama doy mhm. mais président wu Sénégal wala élection wu Sénégal mënut a am sans Sonko man gëwuma loolu Sonko day bokk loolu dara du ko dindi man te bu bokkee day gañe te su bokkee day gañe incha allahu taala ñu séntu Sénégal boo xamante dafay jag ba mel ni Qatar wala ba mel ni Dubaï te amul sikki ne suñu borom danañu ko defal damaa te wax ne wërsëg danañu gane si keew bu Sonko duggee pale président boo xamante ni bu fi nekkee ci jàmm la ñuy nekk ak salaam ak ubbeekaay mooy président Ousmane Sonko en deux mille vingt quatre incha allah. waaye seen ndaw sa de nee day xaru. ndax dégg naa tey Gabriel Kane di ko yàq lu mel ni xamee neen dafa bëgg ñu may ko ay këyit génn ko réew mi mu dem rawale bakkanam ndax amatul lu mu lekk amatul fu mu dëkk sonn na aji saar xeex bi gën a jafe mooy xeex ak ku yàlla ànd ak mhm. bi ñuy jëlee fii saaba si fay di ko yóbbu Ziguinchor mhm. xamuñu woon lii tey mooy xew wallaahi xamuñu ko bi ñuy naan aji saar dañ koo wiyee muy bind plainte dëkk bi di jeex ñu koy mm. làq di ko jooy xaalis fa ñu woon lii la yàllaay dogal mm-hmm. ndekam Firawna moo mucc ci Moussa Adji Sarr mënta mucc te Macky it mënta mucc man bokk naa ci ñi nga xam ne man bu ma leeroon ne ma Sénégal day jag te gouvernement bi ñëw du topp benn ak APR man amalu ma neex damaa bëgg gouvernement boo xam ne bu ñëwee day topp benn ak APR ñu teg dëkk bi ci yoon li ñëpp bokk ñëpp jot ci mm-hmm. ku jàdd yoon ñu teg la ci yoon Sénégal dafa war a toog toll foo xamante ni avancement la ñuy ñaan ak mu bañ a nekk dëkk boo xam ne nit ñi dañ koy paacoo kii gëm lii te du dëgg kii wax la lii te fekk ne ay tappale la mhm. ay politiciens yu làqatu ci gannaaw nit bu neexee nga nekk fii bu naqadee nga dem fale benn ñaa nga taxaw ci mbedd yi di jooy di boole yooyu yëpp yëfu la yoo xam ne kenn xamul fu mu jëm mhm. mais mooy focus 2024 Ousmane Sonko pare man ci lii laa wax lii laa nekk kenn du ci dindi nag waa léegi sëñ bi ëllëgu Adji Sarr ëllëgu Adji Sarr mooy tawax tànge rek bu la yàlla bëggee duma mhm. da lay tooñ loo boo maataba nga xam ne même bu la baalee maataba du baale te Ousmane Sonko borom martaba la mbugal dana wàcc ci moom mbugal dana wàcc ci képp ku ànd ak Adji lii maa ko wax te dara du ko ni dinañ toog di xaar insha allahu taala ci kattan yàlla ak mbaaxam sëñ Babacar mhm. man du ma xam man lu ma tëgg loolu rex ci përëm mhm. mbiru Ama Baldé Modou Lô de war nañu dajewaat le cinq defe naa samedi bii di ñëw xaw ma sax le cinq la xaw ma le cinq mooy combat waaye samedi bii di ñëw war nañu dajewaat fële ca cosaan la ma ci waxoon laa ciy waxaat mhm. mooy ne man en personne Ama Baldé laa faral du ma ci dëñ ndax patriote la. parce que dama doon patriote cent pour cent. Uh-huh. te képp ku takk ci Sonko noo mel neex na ma. Uh-huh. waaye nag sant nañ yàlla bi nga xamee ne koo ku takk ci moom mbaax ak njub dong nga yànd ak. Mm-hmm. maa ngi ci Ama Baldé moom laay xeexle yan na yàlla may ko te dinaa ko ngémb dinaa ko dooleel dinaa ko ñaanal. Mm-hmm. waaye nag maa ngi wax ne leen Ama Baldé nañ ko sàmm te lenn rek laa koy ñaan man joué combat buy dugg stade bu mu dox. joué stade bu mu. buy dugg ci biir stade bi. bu mu dox nañ ko boot man ne nee nga ma pour li ma jaaxal ñett ilaa mu yéeg fas wa ilaa ñu xool nuñ def waaye daal bu mu duggee tànk stade man ne nee nga ma ñetti fan a ngi maa ngi xoolaat mais heure bu ma xoolee moom laay gis mu nekk ca kaw man ne loolu loolu gars yi de <laughs> ah loolu jaaxal la ma ne sëñ bi <laughs> man de wax du ma bëggumaa tooñ nag waaye xam naa ne daal ñu ngeen ma molloo hmm. xam-xam nax na leen de ndax gis naa ñuy bàkku jàpp na ñu jeex la ah gis man <laughs> amaa day daan de ay sëñ nañ jàll ci leneen. sëñ bi tey nag. Mm-hmm. bëgg naa ñu waxtaanee ndomba gi. Mm-hmm. ñaari ndomba yi sëñ bi ci lan lay dox. waaw man dama wax ne sëñ day jàng ba am xam-xam. Mm-hmm. lëgël wali yàlla bañ gëmam ko. waata nekk koo xam ne day daggee ca làng ga bëgg feeñ ak jëfandikoo nit ñi. doomu képp kuy feeñ di wax ñu lay dëgg da ngaa a nekk ndibbal ci jamono. dëgg la. te loolu daal du ko may lu du jàng xam ak man. boole ko ngëmaane loo nekkoon suñ boobu ne fa yëkkoon. Mm-hmm. ndomba yi pour musluwaay moo ko bëgg tax a jóg ci wàllu musluwaay ci wàllu set wala ci wàllu musiba musiba naawulaay muy accident mm-hmm. wàllu kaso dëmm rab saytaane mm-hmm. lëggéey képp koo xam ne bëgg nga tësañoon jamono nga xam ne bu ñëpp xëyoon pexe ci yow dem ci maaman yi gën a am xam-xam dem ba Inde ba Siin mënu ci yow dara ñi bëgg loolu ñoo itteewoo ndomba yi bokk na ci li taxoon ma dem Gambie voyage ndax ay nit hmm. ñoo xam ne ay moodu moodu lañu woon lu ñu liggéey mu yàqu nit ñi di leen sonal di leen yàq di leen yóbbu ci sëy loolu moo tax ma koy liggéey man dama ne ndomba gi képp ku ko am bu la neexee bul sangooti bu fekkee mucc rek nga bëgg moom ndomba gi kese kese kese ndomba gi du kese ah du kese déedéet man awma ndomba yi nga xam ne dañuy ëwlu teg ku ñëw ñu yëkkati benn jox la lii samay gàllaaji bopp la man personnellement maa koy takk hmm. exemple la ma wane ko ndax dafa am yu ñu ci liggéey yóbbu ko Gàmbi jamono bii jeex na hmm. ndaba gi ci sóotu yaasin lañ koy liggéey mim bu nekk dañ koy ubbi ka koy takk boo am turam moo ciy dugg ñu def ci wallaahu yax sami mën a naasi mhm. liggéey ko ci ismu jalaal ak ci asmaulaay usna yi muy tuur yàlla yi yëpp mhm. ak yeneen gëleel yoo xam ne moo ciy ànd ñetti mbakkan lay doon képp ku ko takk mucc nga ci jamono ak loo mën a def ak loo mën a def man dama ne képp ko ànd ak man sa wërsëg duma ko aj ci liggéey sa mucc duma ko aj ci njub sëriñ dëgg day mën a làq tàppe teg ko ci peggam ne ko toogal mucc nga dëgg la dëgg la de loolu mënoo ñaan dëgg la de loolooy sañ-sañ dëgg sax loolooy sañ-sañ mm-hmm. ku ko suñu borom defalu sag may des na sa la des na dëgg la ndomb gi looloo ko tax a jóg li tax mu nekk ñaari ndomb bi ñetti mbakkan la bi juróom ñaari mbakkan ndax mm-hmm. xam-xam dafay am uute ci puissance am mm-hmm. mooy ne bii boo ko takkee bu lay dimbale quatre-vingt-dix-neuf pour cent bii boo ko takkee mën na laa dimbale ci mille pour cent lu war ndax bii wëll bu mag la wëll bu mag xeetu xam-xam la waxane mag ñu njëkk yi ñoo ko daan liggéey moom la wëllu ma mag maanaam jàq mm. naa ñëw naa ci mag mi ngir mu wëllu ma nga bëgg ku la làq mm. nga xam ne yow mbooleem jamono njombe ga fi nekkee ak tojaange mm. nekki nga ci loo xam ne bët bu set sa bakkan ci xottu geet bu dikkee boobam dañ koy liggéey liggéey boo xamante lu mu gàtt-gàtt dina jël semaine buñ liggéeyee ndom ba nga pare juróom-ñaari téye moo koy wër boole ko juróom-ñaari mbakkan bu nit xëyee gaw ko toog fi mu toog bu fekkoon gaynde mooy ne la mu jël bant dugal ci taatam gaynde ga du ko laal dara du xew dara du xew nit ameewu ko doole ba noot la boo ko takkee tukki dem di nga dellu si boo yéegee ci gaal gaal ga dana mucc ku ca ne mucc donte ne ñoom ñëpp ñaan la wuñ yow takk ko yaay sañ sawetaas hmm. dafa am dëgg yàlla dafa am man li may wax waxantuwuma ko dama ko manta di ko def hmm. du ma photocopier da ngay ñëw ma bind ci sama loxo jox la parce que yàlla may na ma xam-xam hmm. te am ngërëmul waaju baax billaay dama am xam-xam billaay dama am yàlla bañ gërëm ma li may xam xam naa ko li may maan mën naa ko jëfandikoo sañ-sañ rek dimbale ku ma neex moo ci des waaye damaa wax ne bii ak bii ku ci takk da ngay mucc ku mënta benn alquran mënu laa liggéey jàpp la ak ngeen liggéey nit ñi fi benn xewee <laughs> waaw léegi nag ku làqatu ci man mucc nga nee naa la man ku ànd ak man sa njub duma ko aj sa wërsëg tegu ma ko ci sa liggéey loolu man rek maa ko man ñemee wax fii Ndakaaru billaahi dama am xam-xam walaay da nga am xam-xam ku am ci biir ku am ci biir raw nga sëñ beneen bi nag moo ma ko defal lii wàllu cet ci lay dox làmmeñ seytaane nitu guddi lépp lu koy soxla jigéen jigéen ñoo juróomi téere yu bokkul la. lii yaxutan la. Mhm. lii béjjinu béy buñ nàmpatal la. Mhm. lii gàllaaji cosaan la yoo xam ne ñun ñoo koy liggéey. Mhm. bu ko nit amee mucc na ci cat ak ak dëmm ak saytaane ak làmmeñ yu ëpp ñu koy soxla ay jigéen lay doon. lii naa bu ko jigéen takkoon fekk mu ëmb moom waxuma la jigéen ji de mais doom ji ëmb bu juddoo day mucc. nit du ko liggéey jàpp ko. parce que ci wàllu woowu lañ koy liggéey liggéey boo xamante ni ngëneel ak yàlla daf cay feeñ à 100 pour Mm. xam-xam la boo xam ne fu waaye jugee ko ngay góor ngay jigéen ngay mag ngay ndaw mën nañ koo yëkkati jox la ko ba ci sekkee gudd fan dañ liggéey ci yaxutan bii nii sekkee gudd fan damay bokk na ci xeetu xam-xam nga xam ne yàlla da koo maye te lu am la ko donte ne doomu ne ñeent fukki fan ci biir yaayam la suñu ci moom wërsëg la di bind ci moom waaw waaw noonu la ne fi lañ ko fekk waaye sekkee gudd fan am na boo koy liggéey nit du dee lu tut am na 83 cent gën caa néew waaw man de li ma jaaxal nee naa mag ñi niñ daan guddee fan man mii sama maamu bàyyi fekk naa ko jamono. waaw parce que mag ñi dañ daan jëfandikoo xam-xam. Mhm. boo xamante ni suñu boobu moo ko daan teg ci seen loxo ñu gëm ko te di ko jëfandikoo boole ko njub ak ragal yàlla. Mhm. bu demee nag ba nit ñu amatuñ njub amatuñ ragal yàlla sàkku ñaan rek moo leen di dimbalee ndax su boobaa kañuy ñaan la dana doon wëlli bu yàlla gërëm su boobaa nag lu ko lu mu ñaan suñu boobu ngir yow nga am ko nga am ko ndax lépp lu ne ci loxol yàlla jafewut kuy topp yàlla. Mhm. ku ànd ak ku topp yàlla lu ne ci loxol yàlla mu yëkkati ko teg ko ca loxo te yàlla moom lépp dëgg la de lépp a ngi ci biir alxuraan itam maa fa naa fi kitaab min shay bawul dara dëgg la képp ku ci jàpp jàpp ci njub képp ku ci jàpp jàpp ci mucc sëñ bi ana suñu noob ga noob gaa ngi fi ba léegi jigéen joo xam ne da ngaa bëgg ilif sa jëkkër doom ju bëgg ilif baayam yaay ju bëgg ilif jëkkër mm-hmm. doomu aadama boo xam ne da ngaa bëgg koo nekk ci jamono rek mu gëm la topp la jox la bopp mm-hmm. lu ñu amee nga jot ci loo bëgg ñu defal la ko loo digle ñu def ko loo tere nga ba ñu bàyyi ko nga féetee lañ kaw nga mel ni ay buu ak i dagam loolu dafa am xam-xam mm. la ñaan yàllaa koy maye te dara du ko maye nag lu du jàpp ci ñaan ñu takk bind jox la ne la am dafa nekkoon nanga defee ko nangam su boobaa foo nekk yaay ilif nañu ni tiim su boobaa nag dañ naan am na lii am na lii am na lii am na la léeg-léeg nga ni sax ñaan dafa am gàllaaj dañ ko war a gàll nangam ak nangam fekk du loolu dafa jëfandikoo ñaan yàlla goo xam ne suñu borom da koy notal xolu mbindeef yi ñu di ko bëgg di ko topp di ko foglu di ko jooy am na yu ñu ciy liggéey dañ koy yëkkati def ko ay xamu wam sangoo ko am na yu ñuy liggéey ci xeetu jaawa xaalis am na yu ñuy takk am na yu ñuy def ci seen parce xam-xam dafa am la nga xamee Gàmbi ak la nga tarbiyee Saalum nangu ne ko sëriñ bi waxee rek nee na la ko tàmbalee bari ñi la wax tëngéej nee na ba plateau ku ñaan man wallaay bu man dama am xam-xam <laughs> dafa am xeetu xam-xam yoo xam ne ni yenn xusoos yoo xam ne ku bëggut yàlla sax doo ci jot mm-hmm. yow li ngay gis nii gis nga ko xam nga ne lii du xam-xam bu ndaw déedéet nit ku nekk mën naa xëy téye bee jën mais da ngay gis mbir xam ne li baati na ni biir loolu yombut mm-hmm. xam-xam la suñu borom moo koy defal nit mm-hmm. yii ngay gis mbir la yoo xam ne ñun ñoo koy liggéey jéggaani ñu ko fenn parce que dañoo am xam-xam suñu mm-hmm. borom dimbale nañu tàggat ci suñu xol yi may ñu yittee ju ñuy sàkkoo xam-xam ba am ko su boobaa nag di nga ñëw fekk say bàyyi toog sax nga fëgg sa dënd sañ kanam ba sëñ Babacar responsabilité bi muy jël sëñ Babacar bu xasee ba wax bu àdduna bi yëpp maase woon ne li muy wax lu dëgg teewul patt lay def te lu mu yàgg yàgg yàgg yàlla da koy may dëgg li tax loolu mooy man dama am xam-xam nee naa la man làmbatuwuma photocopie wu ma mhm. mhm. wéeruwuma ci gannaaw nit woo ma léegi kuppe léegi ma seetal la léegi amul sëñ bu ko ñemee wax ndakaaw yàgg nga fi yàgg naa fi mhm. ma bind ci sa kanam fas ca kanam mocc ci sa kanam jox la ne demal kenn dox suñu diggante amul sëriñ bu ko ñemee def ndakaaw fekk client mu taxaw amul xaalis nga ne ko kaay ma investi ci yow samp la ba nga jéggi fii nga nekk nga am Mm. loolu néew na nit ku ñemee jël engagement yi. yoroo dara ma ñëw ne la kaay ma sampal cangat goo xam ne cangatu xaalis xaalisu dëkk ba nga nekk nga koy booleeg wërsëg di la fekke si comme ni doomu aadama di taxawee ngelaw di ko upp boo amee gestu ma. waaye boo amee foo nga gestu de. <laughs> doomu aadama du bali koy jëriñ. walaay ndeysaan waa dëgg la de. mos tay am junne nga dellu jàmbuwaay ji danga nga xëy ñaar dërëm dëgg la nga sax ak kooku million sàppi la. Mm-hmm. man dama am xam-xam mën naa dimbale ku ne. est yi rek laay jëfandikoo lu ma neex def ko. te responsabilité nga ci jël. man li may def maa ko ñemee def def samay photo def samay affiche def samay scanner na ñëw leen maa ngi nii toog. ñëw leen daw ma daayu garab ñëwal. toxu ma dew ma sant yàlla bu fekkee bon na kaay ma delloo sa xaalis. loo ci dépensé woon ma fay la ko. responsabilité bu ko nit ñi ma a jël ci ñaan rek amul xam-xam. sëñ bi sunu gaañaan gi gis naa jeex na. daanaka gàmmu ga mhm. la nga yóbbaale woon jeex na gaa mhm. gaañi nañ taxaw foofu xaar ma sëñ Babacar mhm. jaaru coow li def ci bari trop man jaaru yi may gis ci TikTok yi jaaru vingt cinq mille jaaru trente mille jaaru cinquante mille léeg nga ubbi jaaru fekk ci xooxu si déem léeg nga ubbi jaaru fekk ci saabu jaaru aqiqa bu wér boo xam ne kaaraange la ak wërsëg ak ubbeeku ak cofeel yoo xam ne doomu dañ koy am cew te duñ ko sañ a man nag damaa bokk ci sëriñ si nga xam ne mhm. bokkuma ak nit ñi yoon mhm. li tax bokkuma ak nit ñi yoon waaye tënkuwuma ci li nit ñi wax ak ci li ñuy def man damaa tënku ci xam-xam bi nga xam ne jàng naa ko am ko man ko mhm. jaaro xaalis boo xam ne danga koy takk suñu boobu notal la xolu mbindéef yi ñu di la bëgg ci mu leen di neex ak mu leen di naqadi nama la koy waxee noonu mu koy gisee bu amee lenn lu ca uutee ak loolu nga dellu siwaat ma jox la sa xaalis indi sama jaaro bu fekkee ne da taxaw ci internet gis ma fa ma wax la jox la ne la demal bu gisoo ko dellu ci internet wax fa ba jotaat ci man. Mm-hmm. jaaga xaalis boo xam ne boo ko takkee suñ borom dalay lay yëkkati ci kanamu nit ñi boo waxee mu saf leen boo jëfee mu saf boo ànd ñoom ñuy sonn yow nga tëdd di nelaw te buñ pawee yaa leen di ëppale. Mm-hmm. suñu borom da lay nit ñi. képp koo xamante ni takk nga sama jaaga xaalis koo bokk ak jamono mu jiitu la da nga koy dab kenn mënu ci daal. foo nekk nit ñi dañ lay bëgg mbëggeel goo xam ne du am limite hmm. jaaro xaalis yoo xam ne dañ cey liggéey ay xeeti xam-xam yu uute woo doomu adama nu mu mën a mel da bëgg muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw ku xonq ku weex ak ko ñuul ci luñ dul sañ bañ ci luñ dul sañ bañ bëgg goo xam ne du am benn sikki sàkk jaaro xaalis boo xam ne boo ko takkee yow da ngay nangoo ndey yow di nangoo càmmooy wërsëg da lay dikkal afwaajan afwaajan ba nit ñi di laajte looy liggéey ndax doog ngay jaay wala yàmba hmm. loolu xam la ku foofu ku amul capacité boobu noonu foo jëfandikoo jaaw xaalis. Sëñ Bakhoum fu jëlee xam-xam man sax xam nga dafa may yéem chaque jour ba dama la koy bëgg laaj man chaque jour Sëñ Bakhoum foo jëlee xam-xam. boobu man damaa jàng bàyyi yaay bàyyi bàyyi dëddu àdduna. tumuranke jàng xam-xam ba am ko tumuranke sonn xiif maar doo ko am xam-xam. nit du tëdd di nelaw am xam-xam xam-xam duñ ko doonee ci ndey wala ci bàyyi xam-xam du bàyyeekoo ci sant. xam-xam du bàyyeekoo ci diw mu seen diw tappule la. Mhm. seen diw mu seen diw laa ci ginnaaw seen diw yooyu yëpp ma ci. man sël la ñëwal gëm ma ba dimbale la weddi ma nga demal sa bopp loo am jël dama am xam-xam loolu sikk sàkku ma ci ku ànd ak man ma faj sa aajo faj aajo yi ku la yaakaar mooy li gën a yomb ci àddina wallaahi ku takk sama jaawaxaay jiitu say maas ku ñam sama loxo mucc ku ànd ak man wës ak soppi la ci kàttanu yàlla ak mbaaxam insha allahu taala loolu suñu borom def na ko def goo xamante ni dootul dañ ba mukk man loolu dama koo wax parce que li tax mooy xam naa li ma amee te am nañu jàpp ci man ba mucc te yaakaar doomu aadama nag bu la téeméer bëggee ñëpp mucc sañ ngaa bàkku donte ne bàkku ga sant yàlla ndax sant ak wane wo dañoo nidoo waaye nag yonent sallallahu sa wasallam moo wax ne wax xéewal yi la yàlla defal sant yàlla mais weddi ko kéeféer loolu moo tax ñu nekk suñu bàkk Sénégal ak Gambie ñëpp xam nañu suñu ñaan yàlla ñu nekk dañu ko ñuy présenté loolu mm. suñu borom moo ko def mm. ku gëm ma dimbali la ku weddi demal sa bopp ku gëm ma dimbali la ku wet sa bopp sëñ Babacar Gaañaa ngi ñii moom def nañ seen résultat ñii moom jaratuñ sax waxtaanee xanaa fàttali rek lay doon fa sakkee fa ina sika tan fa moom nii na mm. fàttali day jëriñ koo xam ne dafa gëm mm-hmm. ak ko am xel yëpp mos naa ko neex na ba naa ko amut fen dëgg la responsabilité ñaane yàlla ni ma koy jëlee kenn du ko ko jëlee parce que man li ma amee xam naa ko ni tubaab bi ma nee wax ne garab bii Fatick maa lay faj def ko ci pharmacie yi ñu di ko jaay di ko importer muy jaar ci frontière yi di jàll gauche ak droite kenn du ko laal sama garab garab boobu la am mm-hmm. képp koo xamante ni émoit bu nëbbu wala bu métti fatiguement ndigg lu métti yax yu soccet règle douloureuse mhm. myome kyste jabet garab yi da koy faj ngëneel la yoo xam ne yàllaa ko ci def képp koo xam ne dem nga ci sëriñ ñu jox sa soxna mu di la jox ngay lekk di naan ba bii buy métti sonal la ba nga xamante ni kattanu sëy sax amatoo ko boo ñëwee ma jox la samay garab lu la loolu mosoon a lekk ci àddina ci lu bon da ko génnee loo mosoon a naan ci àdduna ci lu bon na ko génne ci lu dul benn sikki sàkk est-ce que lii ngëneel la yàlla def dootul dañ ba pencam yàlla naa ni clients yi bëgg nañ ko de <laughs> médecine traditionnelle def naa ci lu ne clients yi bëgg bëgg bëgg nañ ko lool sax lool bii nag góor da koy jël jigéen da koy jël li hmm. tax mooy fajuk ajoo ko tax a jóg ak raxas biiru doomu aadama ak sante est moo tax fu waaye jógee ko yitteewoo ko kenn rek moo am sens interdit ci garab bi mooy jigéen bu nekk en état hmm, hmm, bu dul ko jëlee ma faj sa aajo ñëpp a feebar ku am mën na koo naan parce que fii ku fi dund fukki fan ak juróom feebar gane si la dëgg la parce que lekk yi ñuy lekk ak naan yi ñuy naan su boobaa bu fekkee ne boobam dafa bëgg kàttan dañ koy jox garabu kàttan bi ndax li tax may joxe bi toog cee teg bi mooy balaa sexe santé mhm. garab bii nag gannaaw goo xam ne ni jël nga bii ba noppi lañ lay jox bii nii bii boo ko naanee man damaa wax ne mun ngaa sëy ba sonn ta doo daanu sans yow wàccee lal bi da ngaa xiifoo la nga ma glace gi moom dana formé glace gi day formé ba ko dóor mu yëg na da nga ko sànni mool Hmm. te mool boo xam ne du am suuf ciment kese lay doon lay nidoo bu dee awra buy dellu bu dee awa buy dellu boo ko naanee da koy xëcc parce que awa buy dellu sadit yuy dellu la hmm. sadit yooyu nag nga xam ne moo dem bay dellu parce que dafa sedd di delluwaat di delluwaat delluwaat boo ko naanee dafay lancé waat sadit yi hmm. bu doon dem 10 centimètres mën na dem ba 15 centimètres taweeku am na ñoo xam ne dañ koy jël benn métier la ñam dong mooy mag mu yoo xaalisam ko bëggal waaw fat la ci néeg dem ak yow ba seen la nga jël garab bii nii def loo mos a def ku la mos ta bëgg-bëgg la ku la mos ta jox di la jox buñ la wooyee nga yéexe ñëw ñuy jooy garab bu kàttan dafa am naan ko sëy ba kontaan waa am na de am na de am na de wér na sax dafa am xam am na de mm-hmm. man li may def neexut déedéet sama photo ngi sama numéro téléphone a ngi sama scanner a ngi maa ko wax danaa ko jëf gisoo ko kaa jël sa xaalis dëgg suufeel ma te nii na amee moom a gënal fen yëkkati ma billaahi maa fi man billaahi maa fi man mu ngi noonu <laughs> li en tout cas nit ñi sëñ Babacar vraiment namoon nañ la lool lool. waaw damaa nekkoon Gambie parce que Gambie sama base. Mm-hmm. waaw boole ko ak tool yaag nangam ak nangam. waaw ma ne sax waa ji ñëwagul. léeg man la waa sëñ bi sëñ bi te ngaa ñibbi si man sama téléphone baa ngi xar <laughs> nga ne waa en tout cas dinaa jaar ci daara ja jaar ci tool yi dem Gambie. <laughs> soo soo rappee gàmmuwaat soo ko ñëw balaa ah, sëñ bi loolu waaye nag lépp rek. Euh, tawféex la ak yiw. si yàlla si looy tàggoon. li may tàggoo mooy di ñaanal Gambie gi nga xam ne fa laa jiyee ko pendant 15 jours wala un mois maa ngi fa. Mhm. ñu bëgg ma safoo ma jamono bu nekk ñu di ma laajte di ma foglu mu nekk sant yàlla ci man ndax dëkk ku fa am soxna am fa doom fa nga dëkk. Mhm. kon nag ñu ngi nii doomu Sénégal ak Gambie képp koo xam ne bu ñu yàlla boolee mu nekk sant yàlla ci ñun yenn yàlla boole ñu képp koo xam ne bu ñu yàlla boolee bénéfice la ci man nekk échec yow yana bu ñu yàlla boole. Mhm. maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. na yàlla def jàmm Sénégal. amiin Serigne Babacar Dia. 2024 ak incha allah. macha allah.